xale bu fekkee ne ana papa ñëw ana papa mu xool tey fekkee ne xëy na papa dina de pas que lay ñëw hmm. <laughs> na dem des mu tëb weekend par 15 lay ñëw xale bi du noonu léegi nag xale bi il faut mu am présence lu koy wuti ji foofu muy dem mën naa day tax bu bëggee si naan waaw yaay mun daal da ngay wax dëgg xoole day dugg si nopp bi si nopp génn si nopp bële kon dafa am loo xam ni pour ñu delloo si loolu il faut gars yi taxaw si léegi nag liy à loolu nag lii baaxul xale yi loo wax ni bu ñu wax sax wax sax waxtaan nii rek violence la mais yow nangam ay saaga quoi ay saag lu lu wax mais yow booy dama dama dama nangam lii ay waxu yu bon ay waxu lu ñu wax dañ seen waxtaan rek ay saaga la. dëgg la de. tu comprends même bu la joxee su ma ko dalee waaye yow yokku yokku sa nga ni waaye waaye dama nang mag wax ay eh, góor xam la la boo amee solo lay xool waxal loo xam ni.

amna 18 ans damay damay papa ma je suis majeur. liberté à 18 ans bu ko xali di xol di ko gis dañ naan su do ta bon nag toba bi toba bi sunu wax. que ñun ne papa xam li na. su dañuy commencé le gis mouvement yi gis ay ay nangam di wax et consort uniquement pour réclamer au nom de quoi li wax démocratie. au nom de la démocratie moy la liberté d'expression luma neex wax. gars yi ñëw càggante institution jàppale si nga ñëw au nom de la liberté d'expression damay wax lii damay damay loolu neex wax si biir kër kasaale ko dugg violence dafa doon loo xam ni dañ ko jéggaani bu mu ñëw ba pare ñu imposer ko. valider ko ñu ko fii valider ko. te am na si yoo xam ne tey pratiquement am na foo xam ne bu ñu fa taxawoon tey matukaay la mais mais mais presque alors da boo ko see bés bi da nga naan c'est au niveau institutionnel day dem ba suñu njiit xëy na ñooy far yenn yi ñooy taxaw yenn ñooy amoon yenn taxaw yi nga xam ni comme ni ñu wax wàllu ay nga jéggal ma si tur bi wax ay affaire wàllu góor jigéen bi ñooy taxaw ne ñun loolu nekkul sa xalaat bu la buñ sa sonn et pourtant gars ñu des yene keun yo xam ne dañ se jëmal pour tegal ndëg sax yi nga xam au moins dina fa am genre ay concept yo xam ne suñu ay permis yek ku nekk di wax di wax bu ñëpp comme taxaw hmm. de la famille dañ koy tëggaat dañ koy qui par rapport à nos valeurs xale éducation école am a biir kër yi am nu ala kulli bu ko am lu